làmmiñ dafa fase woon daal li bëgg làmmiñ dafa fase woon daal sëñ bi ne loolu la wax muy ñaan suñu borom dindil ko ko muy ñaan suñu borom dindil ko ko waaye ba mu ko dindilee itam waaye ba mu ko dindilee itam daf ne comme mënumaa wax daf ni comme mënumaa wax te am naa rakk joo xam ne te am naa rakk joo xam ne muy muy muy Haaruna muy Haaruna damaa bëgg nga boole koog man damaa bëgg nga boole koog man def ko yonent def ko yonent mu di ma jàppale mu di ma jàppale damaa yaakaar nag damaa ah, dafa yaakaar nag ñaan googee ñaan googee dal na mm-hmm. dal na Ousmane Ousmane alhamdulilah jumaay mi ndax jumaay mi jumaay jumaay jumaay boo moytuwul boo moytuwul moo koy def président moo koy def président duñu jàpp tayit tayit Ousmane ci boppam yàlla da koo dimbali Ousmane ci boppam sëñ bi ne yàlla da koo dimbali la tax ma ne ñaan Moussa ga dal na ko la tax sëñ bi ne ñaan Moussa ga dal na ko discours yi muy tenir di ko wax discours yi muy tenir di ko wax dafa convaincre xale yi bañ bëggal ko seen bopp dafa convaincre xale yi bañ bëggal ko seen bopp joxu leen xaalis joxu leen xaalis campagne leen campagne yu leen. daa wax lu leen convaincre rek. daa wax lu leen convaincre rek. ñu ànd ak moom ñu ànd ak moom. dëgg la te réew mii am xale yi. am xale yi. jot nga ci réew mi jot nga ci réew mi. yàlla nañu njiglaayam. amiin yàlla nañu njiglaayam. barke Sëriñ Tuubaa. leen sant yéen ñëpp. sëriñ leen gërëm yéen ñëpp. lam bi bu waxul lii rek wax lee. waaw ah. waaw moo tax mu jàpp ni. nattu yi ñu ko teg. nattu yi ñu ko teg. Mm-hmm. te muñ ko ngir yàlla rek. nee mm. eh, ca muñ ko rek ngir yàlla. Mm-hmm. dina ko jural sëriñ bi nee na mën na ko jural lu rëy te dina ko jural lu rëy. Ah, ci bokk. kon nag nee na yéen ñi ci bokk. tey dox. tey dox. lu jagal réew mi. luy jagal réew mi. Mm-hmm. ndax moom li mu woote. ndax moom li mu woote. Mm-hmm. mooy liggéey. mooy liggéey. ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla. ak defar réew mi islaax nag. isba islaax islaax defar mooy defar. képp kuy defar. <laughs> yaa ngi suñu borom yaa ngi suñu borom bëgg. yàq daal lay mooy yàlla bañ. yàq daal mooy suñu borom bañ. <laughs> jërëjëf bañ na koy def. te da koo bañ ba noppi bañ na koy def. <laughs> ña koy def nag. ña koy def nag. Ah, yàlla yàlla jëlee. amiin amiin amiin amiin. amiin tey ñun ñuy defar. amiin Macky Sall ak muy Macky Sall waa këram. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf.